Euh, sant sëriñ Touba ñaaneel Serigne Mountakha mu yàgg fi lool ci wér ak mbooleem xalifa bu ne ci réew mi yëkkati nag ay kàddu kàddu xam ne euh, ñi ngi ko jëlee ci li nga xam ne mooy njabootu famille Serigne Bara Dolly Mbacké yàlla dogal ñu nekk seen mag euh, gannaaw bi nga xamee ne am nañ ci ndigalu sunu waajur ñu yëkkati kàddu yooyu mu concerné famille bi yëpp. di wax ne ñi ngi jéggalu askanu Sénégal yëpp euh, jéggal mboolem jigéen yi jéggalu it ki nga xam ne mooy président de la république di wax ne euh, fan jógee ci tubaa ak fan bokk ak nañ boo bokkee ci Serigne Touba ah yaakaar naa ne ay wax yu mel noonu warta jógee ci ñun kon tey bu demee ba kenn ci njaboot bi yëkkati kàddu yu mel noonu wax ko duñ man lu dul xam ne njuumte la ñu koy jégalu ngir askanu Sénégal bi yëpp ki nga xam ne nag moom la mbir mi dal ci kaw muy président de la république ñëpp xam sama diggante ak moom euh, mu doon koo xam ne nii tamit yàgg naa dégg lu ne yàgg nañ koo wax lu ne waaye mu am xolub muñ moom ci jëmi boppam it yàgg na maa wax ñi nga xam ne njaboot gi lan na leen bàyyi leen ko xel ñu ci bari nañ ko bàyyi xel ngir ni ma demee ak moom comme que nag yàlla dogal na ko nii maa ngi sàkk ci moom mu bàyyi xel mu bàyyi ma xel ci biir njaboot gi lu am solo la ndax musuma dañ ci ne waxtu bu ne nan bàyyi xel président Macky Sall ngir ni ma demee ak moom waaye nag suñu borom nii la ko bëggee woon ba may sàkku moom ci boppam mu bàyyi ma xel ci njaboot maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di sant soxnaam ndax mbir mi bu jógee day concerné njabootam gi yëpp kon mën na wax ne njabootam gi yëpp di soxnaam soxna Marème ak Amadou ñoom ñoom ñëpp parce que famille bépp lay concerné kon loolu jàpp ne bis ni ki tey man mii di wax ak yéen kenn ku ne umpaliwul sama diggante ak président de la république kenn ku ne umpaliwul sama taxawaay ci wetam euh, kon mën na wax ne tey am mareem ma ngay sama biir kër kon loolu famille la liñ ci mën a wax daal ci gudd ak gàttal yar bi nga xam ne am na sénégalais yi war koy dox waxtu ne mooy kàddu yu ñaaw yi ak tuumaal yi war nañ koo daw guddi ak bëccëg ndax dafay doon loo xam ne nii dafay yàq société kon tey bu dalee ci sama biir famille en tant que man ci deret en tant que man ci wàllu kilifa li ma war nga xam ne du politique mooy ma taxaw taxawaay bu mel nii te loolu laa fas yéene taxaw insha allahu rabbi te kenn ku ne jàpp naa ne li ma def tey moom bu nekkoon sama place lu mel lay def kon maa ngi koy ñaanal yàlla natt boobu su borom dindi ko mu jeex mu delluwaat ci këram sàkk mboolem Sénégal yi jéggalu boobu it ñu ñaanal ko yàlla yàlla teggi natt boobu nga fàttali ñu tur bi sëriñ Modou Bara Dolly Mbacké man maay magu magam ah, sëñ Cheikh Bara Dolly moom it ñëwoon na léegi nii léegi lay soog a dem kon famille bi yëpp la engagé moo sëñ Fallou ñoom waaye sëñ Bass ñu mii nga xam ne doomi sëñ bi ci xolam la am gumu ñoom nga xam ne yàgg na ànd ak sëñ Baara ak mbokk yi dëkkandoom yi ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw ak sëñ bi Fall mu nga xam ne xaritam la ñoom ñëpp ñoom la engagé waaye toujours it bàyyi xel lu bëree bëree bëri bëri ndax tey am na ñu doon àndal am na ñu ma fi gis dégg démb am na ñu ma fi gis mu doon euh, Mamadou Lamine Diallo laa fekk tey ak benn xaritam bu ñuy wax Mamadou Masali mu wax ko ay dëgg yoo xam ne nii wan ko na ko ah lii lépp yàgg naa la ko wax waaye gisuma fi tey Sonko dégguma ko fi ak ñeneen ak ñeneen mu doon acte boo xam ne ca dëgg dëgg dëgg dëgg ah, mm, rafetlu ma ko te nit ki heure bu ne koo mën di àndal ci àdduna na nga bàyyi xel ne sa bopp am nga leneen loo xam ne ñoom amuñu ko ndax toujours damay faral wax ci samay moom ab sëriñ du dégg ex mukk sëriñ ba ilaa yu nii ku du dégg ex nag koo àndal muy dégg ex denc bàyyi xel lu bëree bëri bëri maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum. ndax gis waaw gis naa ko waxtaan nan am na xel mu dal waxtaan nan ànd naa ko dal waaye nañ ma ci gën a taxawul daal gën ma koo jàppeel xam ne doomi nit ku yiw la fu yiw lu jógee ñoom te am na ñu gën ma koo taxawul gën ma koo jàppale li ci des nag mu ngi ci loxo yoon gëm naa ne appel bi bu ko président déggee lam ca war a taxawee lépp dana ko taxaw ndax ay xarit lan ca moom rakkam la ah ndax sa xaritu Euh, sa sa sa xaritu xarit sa mag te gëm naa it loolu dana am ndax xam naa xol bu yaatu président xam naa taxawaayam ak yéeneem wasalaamaaleykum wa rahmatullah